lu matul fukki fan ak juróom ci bi fi ministre bi yor wàllum ndox mi ñëwee fii ci Touba ngir daal di indi ay saafara ci ñàkkum ndox mi nga xam ni ñi ngi koy nemmeeku ci dëkk bu sell bii askan wi dëkkee ca Daaru Rahman ñi ngi xam le ni ak tan am na ci ñàkkum ndox mi nga xam ni moom lañ doon dund ci fan yële ñàkkum ndox gi moom yàgg na wax dëgg fa yàlla ndax màggal gi paase sax dañoo root root lañ doon def màggal gi paase root fii ba kër ña suñ kër lañ doon roote te moom tamit comme noonu rek la doon def waaye lu mat fee comme fee ñett fan ci ginnaaw robinet ne tijji na côté bii moom ñàkkoon nañ ndox ñaa roon mu metti sax ci lañ nekkoon roon mi moom metti woon na torop ndax roon mi ba muy root see root sax bale bi mënuñu ko woon ndax kenn mënul am jot bàyyi sa kër amoo ndox ba pare ñëw di root mais di diiru lu fee ñetti fan daal ci la tijji moom instant bii nag moom mi ngi xeeli fi tool toll nii waaw suñ kër moo ci tane woon fu lañ daan roote te daan xeeli par tuut tëj par tuuti xeeli tuut tëj la tuut la doon waaye instant wax dëgg yàlla gisuñu benn ngi tij loole nag li ko waxal di ndigal li nga xam ni ministre bi joxe woon na ko ci forage boobee nga xam ni moo nekkoon Kër Ñàng te amoon jafe-jafe yi bees de débit jëfe nañu ko ba forage baa ngay dox bu baax a baax ki ñu xamal loole nag di contrôleur bi nga xam ni moom moo nekk ca boobale forage. fi mu nekk nii macha allah wàññi ko na bu baax tax gaa yi ñëw nañ fi keroog dimanche saafara bés di débit bi ma amoon bi nga xamoon ne maanaam feeñoon na ci manquement ndox mi tax bés débit moom boo ko amee rek kooku moom manquement ndox la léegi nag loolu saafara nañ ko ci dimanche bu la jàll muy maaw Maawu Rahmati ak Ofor ñoo àndoon ñëw saafara loolu loolu saafara nañ ko léegi am naa débit bu baax maa ngi pompé 24 nekk nii maanaam li nga xam ne moom war nañ ko fi liggéeyaat. Sétédo moom moom baax na fi ndax Sétédo moom bu ñu ko amoon ak euh, forage bi am solo gi mu am solo wax dëgg yàlla dana gën a baax lool lool lool lool Sétédo bu lool jàllee itam euh, wàllu collecteur bi moom bëgg naa ko lool ndax day am sécurité ndax fii dafa nekk ci biir dëkk bi waaw loolu moom dana ma dimbali ndax sécurité moom dafa baax. waaw waaw ndax de moo bokk na ci lii sàmm matériel bi fi nekk. boo demee ca Touba yi nag forage bu mag a mag moo fa nekk. waaye mu amoon jafe-jafey courant ba tax doxagutoon waaye ci ndigalolu ministre Cheikh Tidiane Dièye yóbbu nañu fa ab groupe électrogène ba fii ak ñaari fan jàpp nañu ni ndox ma dana fa ñëw bu baax a baax. Daouda la Seye Daouda électricien Seye Daouda Ndiaye ak Thiam Birane Thiam ñoo fi nekk comme électricien euh, am na benn équipe ñu ngi ci yeneen forage yi ngi soog a pare Bagdad kii nañ ko defar na ko ba essai ba taal ba taax na ba ñoom essai ñoom mën nañoo demaat seen forage quoi. fii nii xam naa tôt plus tard demain incha allah dinañ pare fii nii commencé nañ électricité bi ñu ngi commencé jàllale câble instant pour l'instant nii xam naa suba bu ñëwee dañuy raccordé câble mu jeex incha allah fii nii groupe bi moo nekk nii quoi groupe électrogène moo nekk moo yore kii bi bii ko courant bi ñëwagul groupe bi la ñu dawee quoi groupe bi moo nekk nii moo yore moo war a yore forage bi après léegi anuwaar baa ngi si biir fii moom courant moo ko tere woon ndox léegi moom waa OFOR ak CAE dëgg ñoo ñoo booloo def benn kii nii ànd liggéey ànd ànd groupe tegal leen pour mën a mettre en service forage yi quoi pour ñu mën a dox. askan bi moom seen xel wala mën a dal bu baax a baax a baax ndax bu ñu gisee bi nii rek lii rek dal na xel te incha allah xam naa moom d'ici demain wala militaire xam naa du weesu trois jours. parce que yëpp war na mën a naan si ndox mi si forage bi incha allah. ñàkkum ndox mi ñu nemmeeku ci Touba nag bokk na ci li ko waraloon juróomi forage yu mag yu ñu bënnoon te doxagutoon ndax ñàkk ay pompe mi la mbir bokkoon ci li gën a yitteel ministre bi ba tax mu jëloon ci ay ndogal ngir loolee mën a dox balaa yàgg dara. Mor Anta Lo bokk ci waa Maou Rahmati di ñu wax yooyale forage yan la waaye it fi ñu toll ci liggéey bi ginnaaw ba ci ministre bi joxe ay dogal. amoon na ay problème jamono yi weesu. problème manque ndox bu metti bu tar boo xam ne amoon na fi bu ko defee ministre bi mu fi ñëwee lu ko njëkkoon lim ko njëkkoon a ñor mooy cinq forage yi nga xam ne tabaxoon nañ ko fi depuis deux mille vingt trois te kenn dugal loon ci réseau bi mu insister ne forage yi mënul nekk ci dëkk jege nit ñi ñu te mënuñoo am ndox mu jox instruction waa OFOR pour ñu fexe ni ñuy démarrer forage yooyu forage yooyu bii ci la bokk muy forage bu Baxdaat forage u Alieu forage u Daaru Xafoor héliport ak Fatul Fata muy cinq nouveaux forages yoo xam ne forage yooyu yëpp ay forage gros jam gros débit bile forage boo ci gis bu bëri lay xel buñ ko joxee instruction direction direction générale OFOR ñoom tam ñu taxaw ci indi matériel bi nécessaire yëpp naa si yokk lenn sax ndax forage yi def nañ ci colonne yoo xam ne moo gën forage bi mën na fee toog lu yàgg du am li ñuy wax baisse de débit maanaam di xelli te du wàññeeku ndax indi nañ ay colonnes yoo xam ne adopté na ay colonnes inox la xorom si du ko gaaw a yàq donc forage bi bu ñu ko defaree yaakaar nañ ne du gaaw a am ay baisse de débit loolu ñu ciy félicité direction générale OFOR tey jii nag ñu ngi fii ci Bagdad essayé nañ forage bi mu ngi waaj dox incha allah balaa guddi danañ ko danañ ko mettre en service forage bi nag suñ ko mettre en service ba mu dugg ci réseau bi dana permettre ay quartier bi fii Bagdad fii dana am ndox waaye quartier bu mel ne Guédé ñoom tam seen ñàkk ndox dana wàññeeku lu mel ne Alieu dana seen seen ñàkk ndox dana wàññeeku lu mel ne HLM seen ñàkk ndox dana wàññeeku ndax forage leen doon may ndox forage bi day ñëw di leen di soutenir kon forage bu am importance boo xam ne buñ ko defaree rek Alieu dana am ndox Baxdaat dana am ndox biir Guédé dana am ndox zone Tindodi bi di féete si ndóol li faree côté Baxdaad bi dana am ndox donc forage bu am importance la te biñ koy essayé ci début bu mag lañ ko essayé donc dana soulager population yi bu baax a baax te avant ñuy kii forage beeti gisoon nañ ne ndox manqué woon na comme ni ko Bamba wax am na forage yu taxawoon forage yooyu yëpp di direction général indee effort indee ay pompe maa war a xamante ak équipe technique bi mu fi am dem na monte pompe yooyu mu Touba Njaareem monte ko mu am macha allah mu am dibi bu baax dibi bu 200 mètres cube heure mu dem Daaru Karim monter ko mu am 200 mètres cube heure bi ñu fa jógee nag ñu dem forage Kër Ñang nga xam ne moom daa amoon baisse de débit Kër Ñang nag dafa nekk forage stratégique ndax daa bokk forage yi nekk ci biir corniche bi ba pare nekk forage bu mag nga xam ne moom ko su doxee rek soo gisee sax fan yi ñàkk ndox bi wàññeeku ci dëkk bi. ni Kër Niang reprendre début normal am moom moo ko def ndax Kër Niang forage bi day ñëw ba Soura day ñëw ba biir Touba mosquée moom mooy yore route de Darou Rahman moo yore côté xam nga forage bu mel noonu bu débeem wàccee rek day day day indi problème au total amoon na lu mat huit forages yoo xam ne ñoom ñëpp dañoo amoon baisse de débit mais yooyu yëpp en partenariat ak OFOR yóbbu nañ ay techniciens rectifier nañ baisse de débit yi. ba léegi ñu ngi seen débit normal waaw macha allah loo tax soo xoolee fan yi ndox mi yaa deux une semaine dix jours ni ñu ko doon jooyee manqué ndox bi mi ngi commencé wàññeeku ndànk-ndànk te yaakaar ne au fur et à mesure ñuy dem ndox mi dana gën a ñëwaat surtout ak apport forage yu bees yi ñuy defar vraiment ponctuellement moom problème mu ndox mi dana wàññeeku bu baax fii biir biir Touba yi dañ sentir amélioration. ndigal li nga xam ni ministre bi joxe woon na ko. ñi ko séq muy waa Ofor ak waa Maa Rahmati ñu ngi ci jëf seen kéemtalaay kàttan loole nag nekk lu dal xel. la situation actuelle tey jii ci ndoxum Touba euh, d'abord dañuy wax fa ñu jóge ba fa ñu agsi fii euh, parce que umpu leen que ne nii fan yii ñu weesu wala ay semaines yii ñu weesu jafe-jafe ndoxum Touba taroon na loolu ñu amoon ay forage yoo xamante ne amoon na bés bi am ak ay forage yoo xamante ne paanoon na ak yeneen forage yoo xamante ne nii Euh, ci at bi ñu weesu muy deux mille vingt trois OFOR réalisé réalisé woon na ko ba léegi nii taxutoon tamit aussi forage yooyu noonu ñu mettre ko en service maanaam dugalaguñ ko woon ci réseau bi keroog tamit aussi vraiment ci ba visite ministre ba mu fi ñëwee si la xool liggéey yooyu noonu jox ñu ci euh, ay instruction pour ñu taxaw ci def ci li nga xamante ne mooy yitte. d'abord damay ñëw ci forage yi nga xamane amoon na baisse de débit mu nekkoon vraiment ay forage yu bari yu ñu dajale woon parce que baisse de débit foo ko déggee rek mooy tiwo yi nga xamante ne ni xorom bi dem na ba lekk ko mu am ay bët bët ba nga xamante ne pompe bi bi nga xam ne moo nekk ci biir forage bi su manqué ndox wala ko mu dugg ci biir réseau bi day jàllaat ci tiwo yooyu nga xam ne ñoo jàpp ci pompe bi wàccaat ci suuf ba nga xam ne ni forage bi su waroon a génne deux cent mètres cube heure dina dem wàcc sax léeg ba ay cinquante mètres cube nga perte cent cinquante yooyu doon yëpp loolu nag aussi nemmeeku woon nañ ko ci jamono yooyu noonu ci forage yu bari surtout nag ci forage bi nga xam ne mooy forage yu Kër Ñang bi nga xam ne moom ngi nekk ci digg dëkk bi léegi nag ci euh, ak waa Maawu Rahmati yi nga xamante ne ñooy suñuy partenaire stratégique fii ci Touba ñu ànd ci ñoom def li nga xamante ne mooy correction wu baisse de débit yooyu forage yooyu yëpp mu nekkoon ay forage yu am solo tamit ci loolu amoon nañ ci ay forage yi nga xamante ne nii forage yu paanoon lu mel ni fo lu mel ni ci forage yu Touba Ndiarème forage yu Daaru Karim yi nga xamante ne ñaari forage yooyu rek boo ko boolee ñiy génn ci li nga xamante ne mooy débit boo ko boolee mi ngi toll ci 500 mètres cube heure presque parce que forage yu Touba Ndiarème rek dina génne presque plus de 200 mètres cube heure forage yu Daaru Karim tamit même chose kon nag donc mu nekk perte énorme boo xamante ne amoon nañ ko ci li nga xamante ne moom mooy réseau bi mais alhamdulilah euh, indi woon nañ effort indi woon nañ ñaari pompe ñu installé ko ci ñaari forage yi ma jot a lim tamit aussi am na yeneen pompe yu ñu indiwaat mu nekk toll ci juróomi pompe yoo xamante ne ni def nañ ko ci li nga xamante ne ni moom mooy forage yu bees yi nii may wax ak yow ñoo ngi fii Bagdad nga xamante ne def nañ fi pompe bi depuis démb ñoo ngi nii di raccorder euh, li nga xamante ne moom mooy réseau bi incha allah du yàgg dara danañ taal forage bi noonu lañ ko defee tamit àllia foofu it aussi installé nañ pompe bi am na beneen équipe bu fa nekk tamit di raccorder réseau bi tamit foo demee fi nga xam ne moom mooy fatlul fata foofu it aussi installé nañ pompe bi ba essayé ko à vide foofu it aussi équipe bi fi nekk fii ni bu fi jógee suba xam naa danañ fa dem tamit aussi def li nga xam ne mooy raccordement réseau bi fi nga xam ne moom mooy daaru xufoor foofu it aussi installé nañ euh, pompe bi waaye naam réseau bi gudd na tamit aussi danañ fa def ay liggéey dañ fa ubbi ay liggéey yu yees yoo xamante ne nii danañ fexe ba jël tiwo déparé ko ci forage bi indi ko ba ci li nga xamante ne moom mooy réseau principalu Touba noonu it aussi lañ ko bëgg a toppee héliport héliport it aussi installé guñu pompe bi waaye équipe bi war a installé pompe bi tëli na matukaayam yëpp ba sànq rek fa lañ jógee pour xool leen la leen manqué ak yu ci yi nga xamante ne la war a def ba nga xamante ne suba bu ñu xëyee fajar danañ ci tàmbale defar euh, installé li nga xam ne moom mooy pompe bi kon nag donk Euh, globalement tey jii fi mu ne nii li nga xamante ne moom mooy baisse de débit corrigé nañ leen forage yi paan yi nañ leen. Serigne seeni Dieng di chef de village bu Baxdaat di feeñal mbégte mi nga xam ni ñoom waa Baxdaat am nañu ko ginnaaw bi ñu taalaatee seen forage yi lee. loo ne fàng moom kenn du ko jeex sant yàlla bu baax a baax a baax ci turu seex sëñ seexum sëñ Abdou yàlla bu baax a baax a baax a baax ndax mbir la moo xamante ni xëy na ña ko tàmbali woon bu ñu sañoon yeggale ko. waaye wax dëgg yàlla mbir la moo xamante ni nii ngeen ko doxale bett nañu lool ci ci ci Pastef bi ndax barki dem démb dong la fi ministre bi ñëw daal di jël euh, taxaw ne moom bu soobee yàlla euh, bis balaa bis sangam incha allah danaa ko taal eggaguñ ca bis ba la moxoon ñu fa ñu taal ko nii ba ba ndox mi di walangaan lu gaaw gaaw euh, man sax yónnee nañ ma photo bi ba ma yónnee ko sëñ bi xamal ko ne ko fii lañ toll boobu ba tey noo ngi fi yéen ñëpp a ngi fi. santati nan lan bu baax a baax ci turu sëñ seexum sëñ Abdou Khadir ak njabootu sëñ Abdou Khadir gépp di leen sant ci turu euh, village bi yëpp nag euh, wax dëgg yàlla mbir la moo xamante ni defe naa ne kenn ku ci nekk xam na coona bi nga xamante ni moom lañ jànkoonteeloon ah euh, tey jii nag bis lu jeex rek yàlla jeexal ko lu dul jeex amul waaye wax dëgg yàlla mel na ne Euh, liñ naan mauvais souvenir la mhm. xam naa dégguma tubaab nag waaye noonu laa ko mën a waxee pour ngeen dégg ko moom mel na ne su mauvais souvenir la ginnaaw bi ñu amalee ab tournée ngir nemmeeku tolluwaayu liggéey bi Birame Diouf di adjoint coordonnateur bu Pastef Touba mi ngi ñuy xamal nii li nga xam ni le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye diggoon na ko Serigne Mountakha Mbacké le premier ministre Ousmane Sonko ak ministre bi yor wàllum ndox mi di Cheikh Tidiane Dièye ñi ngi ciy def seen kéemtalaay kàttan ngir amal ko ci gën gaa rafeti anam. li ñu fi fekk waa Ofor def ko fi si njiitalu sëñ Bamba ak waa Maaw Rahmat si njiitalu sëñ Pablo mi nga xamante ne mooy coordonné loolu lu dal xel la en attendant solution définitive bi di ñëw ndax loolu la président ba Bassirou Diomaye wax la khalife général de Mourides Cheikh Tidiane Dièye aussi son ministre loolu la wax la moom la wax waa dëkk bi. loolu la waxante waa dëkk bi mooy solution définitive mais avant loolu nag def na fi ay taxawaay yu am solo ndax waa OFOR a ngi nii ñoom ñoo waxal seen bopp indi nañ ay groupe indi nañu lu tollook ay ay pompe def ko ci dëkk bi ñu ni dem nañ ba fi nga xamante ni fépp foo xamante ne waxoon nañ ne def nañ fa pompe ba ñun dem nañ ba gisal suñu bopp ñu tijjul ñu forage yi ñu ñu tijjul ñu seen magasin yi gis nañ lépp li nga xamante ne moom la ñu waxoon ñu xool compteur yi gis débit bi nga xamante ne moom lay sànni lu tolloog deux cent dix mètres cube par heure gis nañ ko ci Touba Ndiarème gis nañ ko Kër Ñang te wax nañ ñu tamit ne Kër Ñang moom mooy forage bi nga xam moo gën a stratégique ci dëkk bi ndax li muy jox ci dëkk bi fen joxu ko te it dem nañ ba gis le conducteur expliqué nañu wax nañu xoolal nañ suñu suñu suñuy bët tamit gis nañ ne satisfaction satisfaction am na ci dem nañ ba Daaru Karim aussi gis nañ fa tamit lu kawe suñu njoot ndax xool nañu euh, début bi am na solo en même temps bassin bi ñu fay defar mu war a jël six mille mètres cubes ñoo ngi ko fay tabax fu mu toll nii te gis nañ ko aussi te loolu day loo xamante ne lu lu am solo la ci liggéey bi ndax tey su nekkee ne pompe bi am na jafe-jafe wala euh, courant bi am jafe-jafe wala groupe bi am jafe-jafe bassin bi li muy contenir mun na commencer jox réseau bi le temps que groupe yi di alimenté waat wala le temps que courant bi di alimenté wala le temps que euh, su nekk problème pompe muy ñëwaat kon loolu satisfaction totale la si dëkk bi ndax it dëkk bi ñun ñëpp gis nañ mar bi nu mu demee woon waaye fu mu toll nii xel yëpp a ngi dal te réseaux sociaux yi foo toll ñëpp li ñuy publier mooy ndox bi nga xamante ne moom mooy moom mooy ndoxu Tuuba bi di sànni nit ñi di di di di di ci kii